Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër kaa ñu xëyandoo xëy ci réew mi te déggoo fi ay tojaange wala ay luubal lu jafe la ci réew mi yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy ci escroquerie ab naxaate boo xam ne ab douanier buy liggéeyee aéroport international Blaise Diagne moom ak soxnaama la ñu si teg loxo association de malfaiteurs jaay ci anam boo xamante ni bu jaarul yoon teg ay pexe yoo xam ne dañu doon jël xaalis ci aw askan la nga xam ne moom lañ leen di toppee nib xaalis ak luubal ga nga xam ne def nañ ko si toll na ci 73 millions teg nañu leen loxo placé nañ leen sous mandat de dépôt tey jii la ñu war a janoo ak àttekat yi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy yóbbu ñu diwaanu Kër Massar ak digg yi njiitu réew mi di Macky Sall dig waa Kër Massar ne leen Kër Massar commune dinaa leen ko soppar ñi la defal leen ko ab département ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllu woowu expert yi seen gisina maanaam wuute na loola yéen kaay gi di Le Quotidien xëy def ab jàngat ci lu jëm ci mbiri Karim Wade ak ëllëgëm ci wàllum politique ak bëgg-bëgg bi nga xam ne avocat yi Karim Wade yi bëgg nañu ko ndax Karim Wade ñi koy layal dañoo bëgg procès bi maanaam ñu daal di koy defaat attewaat Karim Wade lay avocat am bëgg waaye nag loolee lu munta nekk la mission impossible la yéen a kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa maître Jaraaf Sow moom nag nee na Karim Wade maanaam munta nekk électeur munta fale mënuñu ko fale lenn kese rek dong mooy tax Karim Wade mën a am électeur ci Sénégal ñu mën koo fal mu mën a fale maanaam ñu daal di koy am na a kaay gii de la Tribune xëy ci njiitu mi di président Macky Sall ak taxawaay bi nga xam ne fas yéene na koo am ngir nag yëkkatiwaat économie réew mi Macky Sall teg na ay plan Bang journal bi nee na bi ci njëkk mooy ab conseil présidentiel boo xam ne danañu ko lal waxtaane fa ana na la ñuy def ba génn si jafe-jafe yi nga xam ne am nañu ko ci wàllum koom ba ca topp mooy investir bu baax a baax ci mbirum mbay mi ak mbirum sàmm gi ba pare nag woo secteur privé bi ñu daal di ciy dugal seen loxo yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy jàngee fa ne commune bu Madina Wandifa nekk ci département bu Bounkiling région bu Sédhiou maire ba di Malang Seyni Fati dañu ko tuumal ci lu jëm ci suuf su baree bari soo xam ne dafa koo daal di teg loxo daal di koy ngar askan wa nga xam ne ñoo fa nekk ñoom fas yéene nañu amal maanaam ay manifestation ba pare nag ñoo ngi ci woo procureur yéenekaay gi délibération nee na Barça wala Barsaq commencé waat na maanaam ñi nga xam ne ñooy jël gaal gi jaar ci géej gi ngir dem Espagne commencé waat na ndax fan yu néew rek jàpp nañ lu toll ci téeméer ak juróoma ci ay nit yoo xamante ni bëggoon nañoo jaar ci géej gi ngir nag dem Espagne am na ñoo xam ne Rufisque lañ leen tege loxo ñi si des film la yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na douane defati na jaloore ndax ci diwaanu Koungheul lu toll si ñaari tonnes yamba yoo xam ne daat nañu koy teg loxo bi ñu ko xayma toll na si téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari junni ci ay millions yéen kaay gii di Vox Populi nee na en tout cas drogue bi nga xam ne teg nañu ko loxo te waa duwaan def lu ni mel drogue boobee bëri na loola ci ab camion malien la ñu ko daal di fekk te camion boobee maanaam Mali la jógee yéen kaay gii di Dakar Times wax na jafe-jafe yi nga xam ne coronavirus andi na ko ci lu jëm ci wàllum kooma wax na jafe-jafe yi nga xam ne moo mën a fekk investisseurs yi nga xam ne bëgg nañoo investir ci zone UEMOA yéen kaay gii di Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu étudiants yi nga xam moom la état bu Sénégal orienté ci école privée yi te ñuy def sa démb nag mer nañu ba maara day taal yi wàcc nañ si mbedd mi taal nañu ay pneu wax nañu seen naqara li nga xam ne mooy seen càkkuteef nag mooy seen examen yi nga xam ne jàpp nañ ko altine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sàttumbar ñu daal di koy dàq yéen kaay gi du source a nee na màggalug Touba gi nga xam ne ma ngi dëgma la tax na nag ay mbàkke-mbàkke ak ay Baay Faal ca Touba di def ay réunion yoo xam ne yu kenn yëgul la bëgg nas seeni pexe ngir tere Aïda Diallo mu daal di màggal ren màggalug Touba gi ndax daaw bu ma ko màggalee coow lu rëy amoon na pas-pas waaye Aïda Diallo ci boppam moom jamono ji ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñoo ngi wane fulla ñoo ngi wane fayda fas yéene màggal màggalu Tuubaa gi ndax Aïda Diallo nee na lay dem ca Mali jënd fa ay nagam yu duuf yu baree bari fas yéene ko màggale yéene kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamalaan ñu lu jëm ci yeggale jumaay Tiwaawoon ji Tuubaa génne na lu toll ci cent millions daal di kësay dugal yéene kaay gi daal nay wax na njiitu réew mi di Macky Sall samedi ji ñu dëgmal ñoo ngi koy xaarandi fi nga xam ne mooy projet yi nga xam ne maanaam Macky Sall dina ko fa daal di fekk yéene kaay gi du l'observateur daal nay wax ci covid organique bu Madagascar bi nga xam ne Sénégal daan na koy jël dugal ko sa poubelle ba maanaam Sénégal bëggatu ko yéen a kaay gi di enquête mu xëy ci njublan gi nga xam ne njort nañ ne am na ci test yi nga xam ne ñoo ngi koy defal ñuy voyagé di jaar ci aéroport bi yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Modou Mamoun Ngom mi nga xam ne mooy directeur de télécommunication mu xëy seeq waxtaan wu yaatu ak waa réew mi quotidien les jeudis de l'économie wax na ci stratégie Sénégal numérique bu 2025 ak enjeu yi nga xam ne moo ci am daat nay wax ci internet ak taxawaay bi nga xam ne am na ko ci PIB bi wax na ci programme bi nga xam ne mën naa créer lu toll ci trente cinq mille emplois directs ak lu toll ci cent cinq mille emplois indirects moom Mamadou Mamoun Ngoma nee na stratégie Sénégal numérique budget la boo xam ne toll na ci mille cent soixante et un milliards wax na tamit Sénégal lan moo tax maanaam mu jël paie ci lu jëm ci wàllum internet ci dindu Afrique wax na ci contribution bi nga xamante ni xarala yu bees yi mën nañu ko am ngir nag sunu économie réew mi maanaam mu gën a am jëm wax na ci Sénégal gi nga xam ne dina amal forum du ak lan lañu nañu sa mën a xaar yéenekaay gi de sunu làmb nee na yi nga xam ne jot nañu ko def ngir kan mooy jiite CNG am nañu bëri ñoo xam ne Mohamed Ndao Tyson la ñu wax Moussa Ndiaye mi nga xam ne mooy président école de lutte Balla Gaye numéro 2 daan wax ne Tyson yor na profil boo xam ne war naa mën a jiite CNG stade yéenekaay xëy def jàngat bu rëy ci Edouard Mendy ak Alfred Gomis ñaari góol lañ yoo xamante ni ci réewum Sénégal la ñu dëkk waaye ñoom ñaar ñëpp aay journal bi xëy moo si gën a aay li am ma nga Chelsea Alfred Gomis